arbitre baa ngi noonu di waaj a sifflé combat spécial bi dox ci diggante jeex jàmm Souleye Gaynde jeex jàmm moo woon ginnaaw Souleye Gaynde nga jàkkaar lool ndeysaan jeex jàmm Souleye Gaynde jeex jàmm moo la féete ndi joor Souleye Gaynde moo la féete ndi càmmoñ drapeau soxna Aïda Saliou ndaysaan jigéen boo xamante ne jigéen bu mën góor la tey ñu dara jaale mu ñëw ànd ak bu rëy ci biir délégation ba gis naa ci rik Ali Bës Papis Sène ndaysaan ak xale yi parcelle unité trois taw na jël ko jël soo gee na tax daan na ko lu xew daan daan tax tàmm daan na Souleye Gaynde jeex jàpp daan na eh! na drapeau soxna Aïda Saliou ay jeex jàmm jël nga jigéen bu mën góor ay jeex jàmm jël nga ki nga xamante ni seetkat yu góor yu jigéen ñi ñëpp mooy seen yaay moom soxna Aïda Saliou yàlla ko def taalibe Serigne Saliou la Serigne Saliou la tuddee boppam moom la bëgg moom la sopp moom la safoo boo ko ci naxee mu jël moom Serigne Saliou ah waaye jeex jàmm waay eh waay jeex jàmm waay jàmm jeex na tey waay ah! waay jeex waay xale bi boppam waay ndeysaan ndeysaan